diggante ñaari nit yu bëggante bu ñu koy wax nag ci sëy lañ koy wax parce que sëy yi gis nañ ne yàqu-yàqu yi bëri na lool divorce yi bëri na lool euh, lan moo koy indi les conséquences c'est dû à quoi euh, est-ce que c'est des belles sœurs les belles mamans est-ce que c'est la famille est-ce que c'est les portables est-ce que est-ce que est-ce que les causes les conséquences aussi yoo xam ne mën na ko def surtout bu amee njaboot aussi parce que aussi souvent nit ñi dañuy fàtte ne sëy bu amee ba am ci ay njaboot bu tas amee am na ci ay conséquence par rapport aux enfants moo tax mu bëggoon tey ñu waxtaane loolu mooy jox kàddu gi Oustaz Mouhamed Mbaye mm. tey ji boo ñu doon wax ci histoire bu mel noonu euh, lan nga ci yokk ba ñu toog ci plateau bi aussi mën ci jox seen xalaat waa raxu gis nga nag sëy moom mm-hmm. yi nga wax yëpp da ko yàq mm-hmm. Mm-hmm. mais daf ci am yoo xamante ni moo ci gën a gaaw pour yàq sëy yenn saa yi ñaar ñi sëy seen diggante mën na stable mën na neex mën nañu comprendre mais ñi leen wër ñoo leen dul may jàmm ji ñàkk may jàmm gi mën mën mën na doon ci kàddu mën na doon ci ay gest mais mën na doon ci sëriñ ñaar ñu ne ci biir kër gi bu fekkente ni kër gu mag la ñu nekk ñoom ñaar seen diggante mën na am communication parce que base su sëy yëpp communication la ak compréhension gis nga boo xasee barate ci sëy confiance pousse li ci des yëpp maslaa lay doon da ngeen di maslaa rek mais dootul nekk ci sëy boo xam ni comme démb la. Hmm. muy benn tey mën ngeen nekk ci kër gu mag ngeen am jàmm yéen ñaar mais rakku borom kër yi wala magu borom kër yi am na nu ñuy participer ci biir sëy bi dootoo leen stable. Hmm. loolu day yàq sëy. Hmm. même bu dul ñaar ñooñu am na yaay yoo xam ne dañu bëgg doom ba fiir ci doom. tëju bi seen doom di teel a tëju ak seen soxna. daf day perturber seen mémoire. daf leen di déranger. ñooñu nag bu boobaa tey jii bu yaay participer rek nga am ay ay ay ay njëkke yu compliqué rek yéen ñaar mën ngeen a xaw a stable tuuti mais comme yaay xës na participer ci biir sëy bi commencé di ñagasal dootul yomb. beneen bi mën na tegu ci sëriñ yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni. man xataa xaq xaqa amri i muslimin bi yaminin kaziba awjaballaahu lahu naar wa xarama alayhi janna raxu yonent bi nee na ñaar ñuy ànd ci farataak sunna wala ànd ci ànd bu rafet yonent bi nee na ku dem ci sëriñ dëddale leen mhm. ñaar ñooñu ku dem ci sëriñ dëddale leen mbaa ngay wax ci kaw di wax ci suuf ba dëddale leen yonent bi nee na noppalu dootoo defal yàlla lu tax nga dem aljana yàlla nee mhm. sa yaram moom araamal na aljana te dee moo tax nga jëm safara moo xam ki dëdda la ci sëriñ wala ki dëdda la ci wax bi ci gën a garaaw nag mooy faw nga xam jigéen fu mu déparé pour nga mën koo yor xam nga ma ñëw fekk émission bu commencé 30 minute 40 minutes nga wax mbooja wax euh, am di wax keneen wax xadi wax bu ma duggee ci biir pour ma comprendre émission bi faw ma déglu tuuti mm-hmm. mooy problème mu sa yëpp dañu mm. xamul jigéen départam lan la ba gane àdduna ba ñëw ci àdduna nit boo xamul départ mun mënoo koo canaliser. da mm-hmm. ko comprendre. xam nga jigéen fu mu bàyyee ko mm-hmm. ci santiment alal du ko yor parce que bari na ko yor alal jigéen wala ginnaaw. sañ-sañ du ko yor ndax ñàkk fayda ba yor sa kër moo gën am fayda ak naqari deret ba ñàkk sa njaboot. kilifa dina moytu léeg-léeg xaw a reculer ci coow ngir bañ tas këram. Mm-hmm. mais faw nga xam fi jigéen jóge jigéen mu ngi jóge ci sentiment bokkul ak góor. mooy jigéen lu mu entraînement entraînement ci àdduna lu biceps yi génn du tee yaramam day nooy jigéen la rek. Mm-hmm. xam nga lu tax parce que jigéen aljana lañ ko lañ ko programmé fa la ñu ko defaree ci faar la génne mais ci biir faar boobu mu génne nañu bàyyi xel ni ñun ñëpp fi ñu bëgg a dem fi ñu naan yàlla nee na nii la mel ku ko jaamu fa nga jëm foofu la jigéen juddoo mooy aljana kon jigéen bànneex rek la xam jigéen sentiment rek la xam jigéen dalal rek la xam àdduna. boo bëggee sëy moom ci confort da nga koy ñàkk jigéen ci bien-être ngay sëy ak moom. ci bien-être ngay sëy ak moom. c'est très important. cest à nit ñi xàmmewuñ confort ak bien-être. Mhm. jigéen du da ngay àllu jëndal naa la oto bu yàggul changel naa la sa clim defaral naa la salal du loolu moo koy yor moom. Mhm. jigéen li koy yor mooy mu tëdd ba guddi mu am lu koy metti garabam yi jeex mënoo jug pharmacie yi tëj yow góor nga wéeru ci bopp lal bi. ni ko luy metti mu ni sama bëñ nga xëcc ko nànk ba mu ñëw nga teg ko ci sa pooj ni ko xanaa xamoo ni bëñ buy metti bur wi lay bañ jël bi ngay jël sa loxo di ko raay ci ginnaawam ni ko gis nga noppi rek nelaw yàlla dina la suturaal ci sa loxo boobu ba boo koy raay ci ginnaaw muy nelaw loolu lay wër jigéen li muy wër mooy mu def njuumte mbedd mi xam ko nit ñi xam ko keneen xam ko ba mu des yow nga tëj ko ci néeg ala xablal mawaddati nag jaddidiha fa fi tajdidi naxya la xiini mhm. defe naa treize la xaw ma quatorze mhm. saint valentin ban jour la quatorze quatorze tubaab benn bés la ci am buy beesal ça veut dire que kon wan na la ni lu nuy beesal la mhm. muy jour bu nekk nag mooy waral ngeen di jënd ay cuuraay mooy waral ngeen di nàngam mais jigéen def erreur nga teg ko ci néeg ñu ko nag ah maa la tànnal sama bopp kenn yàlla daa dogal ni yaa tax aw ma xarit yow laa def ngay sama xarit sama diggante yow amatul kiiraay pour ma stable ci àdduna mënul ñàkk ma ànd ak yow gaa ñi ñooy wax derrière sa grand homme nanguwuma loolu mais côté sa grand homme yaay une grande dame yow yaay sama wéttal man ak yow yàlla fi mu nu boolee du fii ca kaw la ñu boolee pour ñu sëy ñun ñaar sëy boo gis yàlla dina ko valider 40 jours ci kaw mu doo ko wàcc ci suuf yàlla boole ak yow nag dégg naa détails yi mais pour ma am ci sac bi ma neex sama diggante ak yow mooy tere bi ma la koy tere nga bàyyi ko ak wan bi ngay wan nit ñi ni ginnaaw yàlla am boo ma sagalee ci loolu dara desatul benn jigéen moo neexul téye ki amul sentiment boo mën a dugalati ci noppam lu dul dem loo baax baax loo neex neex làmmiñ loo ko mën a teral teral loo ko mën a jox jox kado bu la suuree mën a too jox jigéen boo ko joxoon téléphone bi gën a seer ci àdduna te mu suur la xool beeg sànni bi ñoo yem jigéen bu la bëggee ba amul sago ci yow boo ko joxoon téléphone bi gën a màgget ci àdduna cofeel bi ngeen àndee dina tax mu rafetal ko daan ni man de waxuma la téléphone bi sax kon wan na ni téléphone bi riisatul mais mu ne la acte bi ma defal moo ma neex moo ma dàqal téléphone bi. Hmm. xoolatul téléphone bi mais mu ngi xool jëf ji ngeen séq yéen ñaar kon comme jigéen nag aljana lañ ko defaree am di maslaa ak moom sa sëy ñeent la góor day muñ di joxe muy ñaar jigéen day tooñ di laaj muy ñaar alaa yu mi diini dalay tooñ di la laaj alaa yu mi diini yow yaay muñ yow yaay joxe kooku nag buñ la boolee ak moom beneen bi ci tes balaa may daaneel mooy man li mooy sama defoo pour ma njëkkee ko ci man mooy defoo ñëpp te amul bu doon examen la tey nga xëy ñëw ñu ni la lan nga lan nga lan nga def tey ci téléphone pour nga war a am 10 sur 10 boo ci génnee WhatsApp 1 pour 10 ngay am parce que chaque jour yaa ngi xool di ree nan la waaye gis ngeen Tapha Tine ni mu toll waa Tapha Tine mi nit la yéen moom nga yendoo ba ngoon mm-hmm. sa Sa Thiès ndeysaan kon dañ ko mujj takk nii man dafa fekkoon ma jàpp mais combat bi fii la gën a leere mhm. en même temps yow yaay wax ak sa bopp yow yaay tontu sa bopp mhm. temps boobu ngay def am na ranking bu sa soxna di denc ci xolam pourquoi faalewu ma pourquoi nangam pour quoi nangam xaw ma mbëggeelu beneen réew mais mbëggeelu Sénégal góor ñu ñoo soxor góor ñu ñoo soxor soxor c'est-à-dire parce que bu njëkk dañ daan apprécier jigéen dafa daan sànc nga ne mais mboo sa tay bi rafet na de mm. mais sa létt mbooji ni diw moom a ko létt nga ne ko kooku moom daal def ni sa poos xaw ma jox ko guro génne cinq mille francs may ko ni ko jënd ci guro mais yenn saa yi comme ñun fi ñu toll ci jamono da ngay def nii rek soxna si jaabante waa paa gisoo sama yére bi nga ne ko bi ban la ci mun la bii mooy bi ma ñëw bërki dem nga ni ku la ko ñëwal nga ni taala nga ni ileen nga wax ci yére bi nga ni ko taala moom benn catlaam daa mën a nettali <laughs> te laaju la objectifu taala mais yére bi mu sol lay laaj la la bëgg a wan. oustaz Dieng boo rafet na wala hmm. rafetul. nga apprécier yére boobu. sa soxna gis nga mag ñi. dof nga yow. mag ñi li nu amoon xoolal ba xam ñun ñu ngi koy dund. Hmm. Hmm. mag ñi même bu ñu liggéey bu ñuy wàcc. ak lu ñu mën a sol ci àdduna dañu bokk xaal. Mm-hmm. ndax mm-hmm. bañ tas yaakaaru njaboot mm-hmm. bokk xaal wala ñu romb bañ a dugub ñu jënd wala bañ a fëriñ ñu jënd parce que dañu jëm ci seen njaboot foog ñu yóbbaale dara waaw gis nga ñëpp bu ñu nekk xale témoigné voilà danga daan dund loolu mu neex mais léegi ñun ñëpp tey lu ñu ko connexion yàlla xam na ne jënd connexion moo ñu gën a reer tey li tax ma wax la ñoom ñoo ñu gën a gore gis nga raxu deux cent cinquante nga leen di jox ñoom ni leen moo fi nekk pour wax la nit ñu gënee gore ñoom. Mhm. ñu jënd ci fonde nga ne loo lekk mun la maa la njëkk naan fekk naanagul day xaar ndaxam yow di nga desal moom mu naan ko. Mhm. boo desul mu tëdd xiifam te du tee mu nàmpal doomam boole ci xiif te du jàmbat. Mhm. te yow li nga joxe bu saful suukar nga attaqué ko lu tax nga may jox nangam bii lu tax nga may jox nangam bii. mooy waral léeg-léeg gis nga jigéen dina génn ci sëy nga daw di ci toppaat dootoo ci jot. fekk ki nga dajale yaa ko ki mu dajale yaa ko ëpp teraanga waaye moo la ëpp jàmm. parce li mu doon war mooy jàmm ji. léegi nag daaneel bi mooy lu tax sëy di tas mm-hmm. mooy bu njëkk ba yàlla dafa am lu mu wax ci alxuraan yàlla dafa ni wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma mm-hmm. yàlla nee na relation boo gis ñaar laa ci roof mm-hmm. cofeel ak yërmande yàlla nee na diggante bu amul cofeel ak yërmande du dem mais dafay am bu jëkkër ji jël am bu jabar ji jël jëkkër ji mooy jël yërmande bi mais jabar ji mooy jël cofeel bi mooy sama jëkkër dinaa ko mat seytaane mhm. mat seytaane itam mhm. góor xam nga góor mën nga ko mat seytaane waaye yàlla nattu la dafa am góor joo xam ne danoo mën a doxaan mën a doxaan ba boo tegoon ordinateur teg ci sa pirig dina ñëw dend ordinateur bi doxaan ko <laughs> dégg ma man dafa am góor ñoo xam ni xam nga tey mën nga li li war a téye sa borom kër ci kër yëpp am nga ko mhm. mais yàllaa la nattoo ki nga ki ngay gën ki ngay séy mën a doxaan dafa mën a doxaan ba yow boo jëloon sa ordinateur dindi sa périg bi teg ko ci. Mhm. problème boobu la day ñoo ba den ak ordinateur bi di ko doxaan tant que moom xamul ne lii ordinateur la du noppi. Mhm. kooku loo jonge jonge jonge. Mhm. loo jàmbaar jàmbaar jàmbaar a koo canaliser. te itam ñoom faw ñu noppal mooy mënuñu ñoo fiire mën a fiire mën a fiire parce que tey jii góor gu jub néew na fi buñ jàppagul moo am. Mm. parce que yàlla moo ñu roof ñeent. yàlla léeg-léeg jigéen ñi ndax góor dina bëgg ñaar ba ñett ba ñeent nga tourné waat laaj bi laaj ni ko yaa ngi nàmpal ñetti doom ba ñeenti doom te ñëpp yaa leen jur boo amul différence ci doom yi rek awma différence ci soxna yi. et oustaz après foofu foofu ma dugal question. léegi nag. bu daanelee après ñu laaj ko ay question. léegi nag xoolal góor coono bi jigéen di daj ci moom ba xam góor mu ngi koy delloo jigéen benn rek may raxu xoolal diggante 6 heures ba ba 18 heures ba 19 heures bu ndogu di jot temps bi jigéen di dresser table période boobu fekk na yow ñun ñëpp. loof nañu ci koor gi kenn mënatul taxaw ñoom duñ toog mais distance bi ñu ngi ci waañ bi di rosi distance boobu ñu ngi lal du ñu juum ñu ngi ñu ngi defar yow lu mu gàtt-gàtt benn quinze minutes vingt ngay lekk suur ñoom ñu commencé waat à zéro dindiwaat li ñu defaroon raxasaat yi tilimoon dabaatal la sangu doog lay tegal ndogg kooku nag sentiment nga koy yore muy wax ju neex muy kaf ak moom muy reetaan na nag moom parce que ñaar ñi dong la seen sëy di metti te kenn mënu leen régler ba alaa yow mi diini mooy jabar ju dof ak jëkkër ju kon loolu moom xoolal bu àdduna bépp toogoon di leen waa loo wax wax boo ñibbee dañuy delluwaat ñoom ñaar ci li ñu nekkoon te jabar ju baadoo la loo ko indil ci nga gisu ko loo ko may ci surprise gisu ko yenn saa yi da ngay indi benn affaire tele jox ko ko mu xool tele bi ne ndeysaan pourtant ñoom day faatu de yow yow yow ban la 23 pouces bi ñoom day faatu ñoo am 55 bi ça veut dire que dalay des déstabiliser. loo daw indi dootu ko jarati. noonu la amee góor goo xam ni loo ko defal ci teraanga daf koy riir léegi nag yàlla nee na cofeel ak yërmande mooy mooy mooy mooy doxal diggante te bu njëkk ba sëy kilifteef la amoon ak jaamu yàlla mais sëy bii nu toll phénomène la ak bëgg cee dugg. bari na jigéen ñoo xam ni du sëy la ñu bëgg mais li leen sonal mooy nduróole bi nduróole bi leen dugal ci sëy mooy xale yi jigéen yi toog ni sol lu blanc ñu toog ni sol lu blanc man daal dama foog ni xale yi mujjee judd bu ñu juddul 24 31 lan judd ndax problème mu manque lan am ak jeu de lumière waaw bi événement bi moo seen digg lalu yaay problème mu manque remarqué xale yi problème mu manque ak jeu de lumière la ñu am Mbodja tant que ñu ngi am loolu te te te te te maa ngi lay wax ni la amul kaddu bu gën a foor kaddu yonent bi ci kaw suuf ndax ginnaaw yàlla moo ci topp xam nga lu mu wax mhm. xayru nikaaxin maa qalla sadaqaha mhm. yonent bi nee na sëy bi gën a barkeel ci sëy yi mooy sëy bi can li gën a néew mhm. bàyyil xel baat bi ñi nga dégg ñëpp ñu ne ci internet bi di jaay di wax seen premier cadeau balaa ren di déwén am na ñu jafe-jafe sëy ñaara ci am ñu tas mbaa ñuy bàyyi xel internet bi ba toog fa di souffrir waaye bëggatuñ fa dara parce que biñ koy def defuñu ko jaamu yàlla te nag taaru jigéen yëpp ak nu mën a mel ak lu mu yéemeeg yëpp li la ci yàlla may pour nga bànneexu lu néew la ci lu néew loolu ngay bànneexu ci jëmmi ndo ndaw si ci karaw ba ci suufu tànk mm-hmm. minute yu néew nga ciy def ci biir minute yu néew yooyu balaa cinq secondes nga nelaw kon li nga ko war a bëggee warul nekk ci karaw boppam ba ci catu tànkam mu ngi ci jëf ji muy jëf ba fekkoon la ci zéro ci mbaax ci gën a baax ci réaliser gis nga boo amee jabar te mënulaa jàppale ci réaliser jaratu ko mm-hmm. cheikhul xadim nee na mm-hmm. wa tawbatan xubilat maa miknatin rufiat maa zawjatin saluhat bi diini yàllaahu yonent bi teg ci ni adduniyaa mataaun wa xayru mataa'i dunya a zawjatu saalih yonent bi nee na raxu àdduna mhm. coono la mhm. waaye coono bi gën ci àdduna nag mooy nga am soxna su baax mais nag soxna yii génération bii góor ñi góor ñi amatuñu patience xale yi jigéen yi bëgg nañu xaalis te dañuy xool ci seen moroom kii dafa sëy ba divorcé rek am na iPhone 15 am na iPhone 16 nga ni fi mu jaar ba am ko pour pourtant mhm. gënumaa rafet xaaral ma jaar ci yoon boobu fekk wërsëg yi yamuñu yooyu nag na ngeen ko bàyyi xel Xadija gën cee mm-hmm. góorgóorlu bu baax macha allah